salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokk yu nekk ci gox yi tey jàngale alxuraan ñooñ daara kii wax ak yéen mooy seen mbokkum taalu bi Ahmadou baas waaye di jot li kàddu yi sëriñ Xaban Mbakke moom sëriñ Fallu mi ñu dénk lu aju ci liggéeyub jàng ak jàngale daaraay alxuraan ci gox bi say xabaan daf leen di nuyu di leen ziyaara wax ne nañ ko jottalil kàddu yi mu jëm ci mbooleem ñooñ dara gis nañu ne waxtu wi nu toll sibur yi ak grippe ak soj mi bari na lool te ni muy laale askan wi noonu lay ëgsee ba ci biir daara bàyyiwul kenn bu ngeen fàttali ci jamono ju niiw li ñuy tudde bees dara amoon na ay sëñ daara yoo xam ne wooxoon nañu leen ci poste de santé yi ak centre de santé yi ak case de santé yi defal leen formation yu yaatu yu dëhër a dëhër ngir bu amee lu jot xale bi ñu man caa am xam-xam ba man caa def seen man-man doo ko jàllale ca la nga xam ne ñoom tële nañu ko sëñ bi di wax ne képp koo xam ne am na gone gu sibur te amoon ci sëñ daara yi kenn kuñ formé ca daara ja wala ca gox ba daara yee ko séq nee na li ngeen di jëkk a def mooy fexe mu tege ca loxool kookee bu ko seetee ba noppi moom dana ko yóbbu ci poste de santé ba ko gën a jege wala case de santé ba ko gën a jege wala centre de santé ba ko gën a jege li tax ñu tudd barab yooyu nag mooy su fekkente ne xale bi dañ ko faa yóbbu te mu jaar ci koo kii nga xam ne bokkoon na ci ñinu formé woon la ca doon war la ci ëpp day wàcc xale bi ci wàllu hôpital ba kay ga nga xam ne moo cay aju ci wàllu woo wépp te lool ndimbala bu baax a baax baax sëñ daara yi waaye ndimbala bu baax a baax a baax ci xale yi itam sëriñ bi nee na mu ngi leen di fàttali lool ngeen gën koo bàyyi xel bu baax ñaareel bi ñu sensibiliser mbooleem bokki daara yi ñu xam ne bokk na ci di gën a mën a indi siburu te di ko tasaare mooy yooyu bari yi ak taataay yi ñu gën a moytuloo ndaw ñi taataay rawatina taataa boo xam ne daf leen a jege waaye itam ñuy tëdd nag ci ay sànke yu ñu nandal ñuy tëdd ci ay sànke yu ñu nandal képp koo xam ne danga amul ay sànke te amoo ci menn man-man boo jokkoo ak moom incha allahu taala wala Cheikh Abdul Fatah doomam da nga ci mën a am ndimbal da nga ci mën a am tawfiq waaye gone yi daal ñu fexe ba ñuy tëdd ci sànk yi tey moytu bu baax a baax taataay te képp koo xam ne yaramam tàng nañu gaaw ci moom bañ koo yeexe ndax sibur bu xasee xuus gone mën na koo sonal mën na koo indil ay jafe-jafe waaye bu ñu teelee jóg ci moom rek jaarale ko ci ñoo ñi nga xam ne ay sëñ daara lañu ni noonu te formé nañu leen bu baax a baax a baax a baax ba ñu dox diggante daara ji ak lenn ci docteur yi ñooñu bu ñu leen yóbboo mbir ma dana gën a jàppandi dana gën a woyof bu baax a baax a baax noo sant bu baax a baax ñëpp di ñaanal Cheikh Moudou Xabaar suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba liggéey bii ko Cheikh Mountakha di liggéey loo mu gën ci am ndom yu kawe kawe te ànd ko njabootu daar ñëpp kàddu yi dañ ma ko doon jottali loo wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa